asalaamaaleykum mbokk internet yu MTV tey nag dañ ñëwoon fii ci Colobane ngir waxtaanee insalubrité bi fi nekk comme ni nga ko gisee sama ginnaaw gis ngeen saleté bi ni mu nekkee fii nii ñi nga xamante ne ñooy jaay lekk ñooy jaay tissu ak passant yi ñëpp di ko romb. tuuti ñu dem waxtaan waxtaanee ñi nga xamante ne ñooy dund ak ndox mi fi nekk salte bi fi nekk ngir xam ñoom na la ñu jàngatee saleté bii nii. waaleykum salaam. sëñ bi noo tudd. man Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo dañ lay laaj nan nga def ak mën mi ak instant bi jamono ci mu toll nii ñu ndox mi ñuy gis sa ginnaaw salte bi et tout yéen ñi nekk si alentour yi di ko dund nan ngeen koy dundee. ah fii de moom wax dëgg yàlla ñii ñi war nañu jàppale fi ñu defar fii fii moom aw ñu fi ñuy xëyee fii la ñuy xëy chaque jour ndox bi war ngeen ñi dimbali ñu dindi ko fii wax dëgg yàlla di moom metti na trop. bu tawee fii nit du mën a am fu muy jàll sax Colobane fii nag garam patron yi mel na ni fii lañu gën a nekk quoi. waaw yéen ñi nga xamante ne lekk ngeen di jaay ak xel gu bon gi côté bii nii ngeen di jaayee lekk yan nañ ko wañaale mën a am si. ah lii de wax dëgg yàlla ah xam nga foo amul fi ngay jàpp foofu rekk nga mën a jàpp du dégg walla dëgg la loolu moo tax ñu ngi xëy fii ñu ñu tàkkale ndànk ndànk rek. léegi ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllum assainissement etu tout lan nga leen di wax pour ñu jàppale leen lii nii jóge fi. ah léegi na ah, ñooñu de war nañu ñëw jàppale ñu fi ñu defar fi wax dëgg yàlla. to merci. sëñ bi. waaleykum salaam ça va soxna si. noo tudd. man Alioune laa tudd. Alioune dañ lay laaj nañ ngeen defal ndox mi ak salte bi nii nekk seen ginnaaw te yéen ngeen nekk fii toujours di fréquenter salte bii nii dëkk ak moom. non wax dëgg yàlla sonn nañ torop parce que fii moom ndox mi moom nawet bu dikkee yow benn doo mën a génn doo mën a liggéey doo mën a dem fenn te bu fekkee feebar bi ñuy wax ci dëkk beeg yu demee noonu tamit xam nga foog affaire yi mën a set tuuti quoi parce que gars yi ci kaw tamit foog ñu jàppale nit ñi tuuti parce que ndox mi rafetul baaxul parce que tey boo xoolee yeneen dëkk yëpp da ngay gis seen assainissement lépp day normal mais ñun boo xoolee fii salte na ba pare ndox mi yooyu guddi gi doo mën a ba pare yooyu paludisme yëpp mun na cee xew parce que feebar tamit nit moo ko war a wata mën a mata ko quoi parce que boo amee ay njit ñoom ñoo la war a gën a mën a dimbali ci yu demee nii nga xam nga fii nii boo xoolee lii ndox mi nii ak yii ni mu mel nga xam ne baaxul parce que tey dangay ngay dox sax oto ñëw jàll tisal la taqal sa yére yëpp boo waxee mu yuuxu la saaga la ngeen jàppane te loolu yëpp ñaaw na mën naa ñàkk d'accord su dul nawet ndox mi du fi nekk mais est-ce que salte nga xamante ne day nekk si côté tamit du nekk problème salte yi kay dina nekk problème parce que fii heureusement sax ba oto mbalit bi day ñëw fii di ñëw di jël mbalit yi wala yu demee noonu mais bu fekkee comme li gaayan bi def ak yi ñeneen ñi def jël poubelle teg sa buntu place ku war a ku naan kaasu kafe jël sànni ji ku naan ndox jël taxi secret sax boo toxee mégo yi yëpp mën naa ñàkk ci biti parce que tey li tax mën a ñàkk mooy carrément da gis ku naan ndox léegi jël sànni fële nga gis koo xam day naan café léegi jël sànni te da jàkkaarloog poubelle xam nga set gi tamit bu ñu koy woote ñun ñoo si war a njëkk a njëkk dugg ci set ñu mën noo jàppale ci set mais ñun bu ñu setul du ñu mën a jàppale parce que ñun ñoo war a njëkk a set parce que boo naanee sa café jël sànni naan sa ndox jël sànni te jàkkaarloog loo loolu boo ba pare ndox mi bu dikkee tamit nga ñëwaat jëlaat ay ndox ak mbuusu ndox ay kaasu kafe ak ay mégo cigarette di sànni xoolal lii lépp mais lii naasu. d'accord léegi ban appel ngay lancé autorité yi nga xamante ne ñoo yor wàllum assainissement ñu yor wàllum assainissement moom li ma leen di mooy ñu ñu te yàlla rek tax ñu parce que ñun sonn nañ torop nawet bu dikkee da ngay sonn doo xam foo jëm dangay war a xëy naaje ndox yi ci mbedd mi mbalit meeg yëpp nañu dimbali daal ñu defar fii quoi moo gën moo gën a naaj pour xamoo sunu suñu wér-gu-yaram ak yooyu yëpp dana war a arrange parce que dèjà feebar mu ngi ci dëkk bi Covid 19 baa ngi te set la ñuy woote te tey bu set amul yii tamit day gën a yokk affaire defe naa du saafara quoi. te xam rek ñoom war nañ see mën a jàpp bu baax a baax a baax ba lii lépp mën a saafara te la ñaan yàlla mooy yàlla gën a feebar beeg jàmm incha allah ba kenn ku si nekk rek delluwaat say yooyu quoi. merci beaucoup. mi ñoo lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay yaay boy. tur bi naka la. waaw ñu ngi may woowee Ba. Tafa Tafa nan ngeen di dundee mën mi salte bi fi nekk ak jàngoro bi lëmbee réew mi jamono ji. waaw mën bi moom ñu ngi koy dundee met na lool si ñun ñun ñu dëkk Colobane yoroo fi màggee fi surtout ñu ne si liggéey naka saa su ñii ñoo koy baleel suñu bopp ñun am nu kenn ku ñu jàppale bu tawee nii lay mel te kër yi tamit et puis président lu génnee guddi këpp fi ndox ak feebar bi ngay dégg si dëkk bi li day dëgg fii dugg si magasin jàmbur yàqal ko yàqal ko lu bari lii daal bu ñu sañoon tey moom nu jàppale ñu si daal waaw. waaw d'accord léegi yow man appel ngay lancer autorités yi pour ñu jàppale leen. ñu yor wàllum assainissement bi. nii. waaw ñu yor assainissement bi moom ñu ngi def lu nu mën nag tey jiit nii lii nga gis ne saako moo ko fi defar fii mosul am onage te tey jii orange bee ngay seen fii si Baye Laye ñun saaxo moon ko defaral ba tey jii mais lii mooy sunu suñu problème mais assainissement bi am na yu bëri yoo xam ne tamit bëttuñu ko ba tey kenn bëttu ko mais raakol yee ngi fii te ñoom di booba léegi élection amoon na defaroon nañ ko di diñu ko politiser tey mu ngi nii arrêté waan nañ ko léegi gisoon ñi dëkk si alentour yi am nañ si part de responsabilité ñi nga xam ne ñoo dëkk si ko tey ba xam ñoom tamit duñu organiser wu bu mën a xool ñoom na lañ fi dindee comme que ñoom ñoo fi yeewoo chaque jour waaw ñun lii ñun ñu fi dëkk ñun ñu fi dëkk ñun ñoo ko doon dindil suñu bopp du maire moo ñu jox buret du kenn moo ñu jox pousse-pousse ñoo ko doon dindil suñu bopp mais saa yéen ko dindee ba pare marché bi seen i mbalit fii lañ koy juug bu ko oto bi tibee bi si ba pare bu tawee mooy indi lii. d'accord léegi lii nii yan jeextal la mën a am seen wàllu wér gu yaram yéen nga xam te yéen a koy nooy chaque ah, lii moom lu mu mën a am dafa dafa bari ak feebaru su corona bi ngay dégg ak yeneen yeneen yu su rax yaa ngi taxaw yow yaa ngi nii lu mu lay xeeñ lu muy xeeñ yéeme kon kay fii kenn wératul. d'accord sant ngërëm ñeel na la. jërëjëf yaa booy. papa ñoo ngi lay nuyu. Ah, maa ngi leen di fay. tur bi naka la. man Mbaye Sall la ñu wax. léegi dañ lay laaj papa yéen nan ngeen di dundee mën na mu jamono jii nii salte bi nga xamante ne moo nekk si marché bi yéen ñu toog fii nii chaque jour di ko nooyi. lii du mbënd lii 24 sur 24 dëkk si du nekkoon mbënd lii du mbënd 24 sur 24 lii ndox mi jëlee dëkk fii bu fekkoon ndoxam taw la ñu ndoxam waaye lii 24 sur 24 ndox mi ci la donc même bu dul nawet ndox mi fii lay nekk fii la mës a nekk. waaw ndox mi moomu noor nawet ndox mi fi lay nekk. kon yéen ndox mi lan moo ko fi indi selon yéen. nga gisee nii rek xam nga moom yëfu Sénégalais rek. tey ñi nga xamante ne yéenay nekk si alentour tous les jours leen xool na ngeen koy jéem a dindee wala lan parce que yéen a koy nooy tamit 500 la. ah waaw soo ko dina ah Badolo mënut a faj moroom Badoloom Badolo mënut a dim mënut a mënut a faj moroom Badoloom daal. donc kon ban appel nga leen di lancer ñoom ñi nga xamante ni ñoo si mën dara lan nga leen di wax. li leen di wax mooy ñëw dimbali ñu ci rek comme moom Badoo la moom mënut a fañ mun dara na ci nguur ñëw defal ko rek moom dimbali ci waa Colobane fii ndax li mu salte 24 sur 24 la ndox mi de ndox mi amul noor ndox maa ngi fi. d'accord papa jërëjëf. waaw kon ñoo ko gisandoo muy jaaykatu lekk jaaykatu tisi ba sax ñi nga xamante ne ñoo dëkk si alentour yi ñëpp ànd di ñaawlu insalubrité bi nga xamante ne moo am fii si Colobane ñenn jàppee ni autorité yi ñoo deful seen liggéey ñeneen itam gis nañ ni que ni ñi nga xamante ne ñoo dëkk si alentour bi ñoo a def le tout pour dindi fii nii salte bi nga xamante ne moom la ñuy dëkkee naam ñoom ñoo koy nooyi bés bu yàlla sàkk mbokk yi di lañ leen indiloon tey ci seen reportage ñu jëf leen daje si yeneeni reportage fii nii si Mously TV